mbokk yi di rafetloon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak see kon ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës ñaari fan yu tàng ci université Gaston Berger dëmb étudiant yi agressé régisseur ba nga xamante ni moom la ñu dénk koppar yee ca service médical ba tey jii ñu bëggoon a perturbé ndajem syndicaliste yi commission sociale ba ni yëf yi kon weesu la prise d'otage boo xamante ni waa Cruz ñoom kon ñoo ko organisé dañ fa dem foofee ca Ndar yàqu yuuxu ko wàllu ci euh, baykat ya nga xamante ni ñoom ñoo fete euh, fële kon ca daaru xuddo sab toogaanu ko ñaxtu la ñu amal euh, ngir nag naqarlu ña fa yëngu ci wàllu miin nañuy gën di jege see seen i tool waaye te société ya nga xamante ni ñoom ñoo yor boobe liggéey nee nañ tool yu bari mënatuñu ko jëfandikoo ba waral nag ñu bari ñàkk nañu seenum xëy ñu bëgg nag loolee ñu régler ko balaa lambay di gën a ñaaw danañu àddu it ca càcc ko juru ca ngin ngi neew foofee teg nañu fa loxo lu toll kon ci ñetti samba boy ay kon euh, xeeti xare race yooyu la ñu jàpp euh, juróom benn gendarmerie nag euh, tegal leen ndëgg sërëx ñu daal di cay tabbi jamono ju ñu kon jële xar ya ba fas yéene toog di naan ataaya ca la ñu wàcc kon foofee teg leen loxo ñu xam ne ni am na ci ay complice benn boucher ak benn taximan dinañu fa dem fekk ji Ibrahima Diame danañu waxtaane it li gaa ñëpp di séntu weeru ko koor wi ñu dalal ci kon madame Kéré fas yéene kon waxtaane lu jëm ci mbir moomu kañ lañ ko jàpp scientifique yi gannaaw gëstu lan la ñu ca wax Maram maa ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. moom mooy kon président association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie euh, kon euh, ma ngoog euh, carte yi ngeen seen danañu ko càmbar ca kanam tuuti ñu wax kon lañu ñu ca gis ci biir waxtaan yi kon ponk yaa mbokk yi ni tut ñu yaatal ko. gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu nuyu leen tàmbale ko ak université Gaston Berger foofee di rub ñaari fan a ngi mënees wax ni euh, coow euh, bari na fa démb des recettes euh, bu service médical ba moom la étudiant ya agressé tey ji ci suba syndicaliste yi bëggoon amal kon ab assemblée générale ci teewaayu ko yenn étudiant ñu bëgg ko perturbé waat mbir mi nag mel ni buñ ñu ko bàyyiwul xel lijjanti ko mën naa jur leneen Ousseynou Diop Habib Seck altine bi étudiant yu commission sociale bi pamti pamte régisseur bi dóor ko nag ay dóor yu metti ci traite bi nag liggéeykat yu CROUS amal seen assemblée générale waaye mbir mi tuuti étudiants yi ak liggéeykat yi laalante ñoom liggéeykat yi nag lii dafa leen metti moo tax ñu amal seen assemblée générale bile gémmiñam di toj boppam di pàdd fu ne ba tey ñu yóbbu ko hôpital lii ñaaw na ñun nag ku ñu door ñu fayu ku ñu door ñu fayu dama ni ñu ngi leen di xaar bu fekkee dañu jëli renfort ñun pare nañu bu fi kenn toog te armée woo ay drogué lañu ñun nag du ñu nangu ay drogué dañu rey et travailleurs yi bis ni nañu na étudiants yi bàyyi liggéeykat yi dem jàngi seen jàng liggéeykat yi liggéey seen liggéey na état moom moom obligation protéger la population sénégalaise population bi lañ bokk li am ci dëkk bi ëpp na wuyu gëm ci université bi ëpp na yàmbaaj ñiy jaaj université bi ëpp na. loolu sax moo waral liggéeykat yu CROUS fii ba aljuma duñu dem seen bërëbu liggéeykaay yi te dañuy bank seeni loxo. bis ñi tey. décret nañu grève kenn du liggéey ba àjjuma. diggante liggéeykat yu CROUS ak étudiants yu université Gaston Berger bu Ndar léegi seen diggante comme safara ak caas ñoom liggéeykat yi sax ñu ngay joxañ baaraamu tuuma directeur CROUS ndaxte nee nañu lépp li xew ci wàllu université bi moo ko waral ñaan sax nguur gi moo di ci safara ca na mu gën gaaw. ma nga kon bu Ndar mu mel ni diggante liggéeykat ya ak ñi nga ni ñoom ñoo fa dem ngir wuti xam-xam boobee diggante kon neexatul étudiants yi nag ñoom euh, daat nañuy joxoñ baram syndicalistes yi ku ne kon jamono ji yaa ngay tam sa morom ak euh, nëmm commission sociale bi réagir moom na mu jàngate jàngatee fii moo di euh, nee nañu benn prise d'otage la boo xamante ni kon syndicalistes yu CROUS kon ñoom ñoo ko amal loolee kon la xamle ñoom ñu daal di yëkki seen kaddu jéem a setal euh, seenub der président commission sociale bu université Gaston Berger yu kon ci turu ko euh, Cheikh euh, Ndigal Bey moom moo waxee noonu nuñ ko waxee daal di joxoñ baaraamu ko tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñooy kon syndicaliste yooyee seenu Diop kon la seqal waxtaan wi du ñàkk kon fekki simili ñu ñu ànd ceeg moom mel ni kon teew na kàddu yi mu yëkkati Cheikh Ndigal Bey ci micro seeni Diop dañ ñuy saaga dañuy xas dimbali wuñ ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo ñu war a servir liggéeyuñ onze heures lañ ñëw seenu bureau loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg fépp foo xam ne mën nañ faa dem ak lépp loo xam ne mën nañ ko def dinañ ko def ragaluñ leen ñu ngi saaga ñu ñuy menacé mais pare nañ pour dee sax pare nañ ko pour l'entrée de étudiants étudiants yi toppatoo wuñ leen lu ne lañ leen di def lu ne la ñuy crise kese moo am ci ci université bi jàng amatul dara amatu fa jàmm amatu fa ma nag mooy principal responsable mais nag décrété na li ñu déclaré mooy persona non grata muy tuñ ko mu jaar fee ci université ba te directeur bu ma nekk bu fekkee mu mënul jël ay engagement mu démissionné donc ñun xam nañ ni avenir u yi intéressé wul état bi avenir u étudiants yi intéressé wul ministère de l' enseignement supérieur et que directeur dafa ragal syndicaliste yi parce que ab lobby leen bu am doole boo xam ni boo waxee baat ñu daaneel ko moo tax ñoom la àndal ñoom la faral ñun nag ñu ngi woo ñëpp communauté euh, opinion publique bépp Sénégal yëpp ñu xam ni que ñun dañ ñoo tooñ. mangook dañ leen tooñ université euh, Gaston Berger fële ca Ndar beneen bi université fii ci euh, Ndakaaru ak SAES euh, e syndicat bi nga xamante ni moom moo ëmb kon jàngalekat yu ci dara yu kawe yi ñoom it daan nañuy dogal ñaari fan yi bankuk loxo nee nañ la ñuy naqarlu moo di nguur gi dafa respecté wul ay engagement ak i diggéem ca ponk nga xamante ni moom moo soxal seen wàllug à ci njàngale mu kawe mi dinañ ci dellusiwaat incha allah 19h30 ak seen i leeral ñoom waa SAES e wutali Daaru Xudoos fële la kon. Eh, ca département bu Tivaouane yu xug wàllu ca ña fay yëngu eh, ci wàlluk eh, mbay mi nee nañ ñoo ña nga xamante ni ñoom ñoo yor société minière yi jamono ji ña ngay dem nag bay bëgg a ëppal seeni tool di ko teg loxo ñàkkum xëy lañ ca gis nag bu yëf yi dakkool loole nag bëgg nañu ci ñu daal di koy jëlal ci di saafara ca na mu gën a gaawee ba waral ñaxtu nañ ko ba ñëpp teg leen bët Cheikh Anta Diop ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu lu jëm ci wàllu mbayam dër nekk ci daaru xuddoos amaloon taxawaayam ñaxtu ñoom denee nañ dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo wër daaru xuddoos daanaka jamono yi de mbay maa ngi gën a dellu ginnaaw ndax usines yi nekk ci seen gox ak mine bi mi ngi avancé bu baax ba tey ji tool yu bari sulu na ndax produit yi nga xamante ne jàll nañ ko ci pegg yi normalement fii 95 pour cent yi ay béykat lañu ku ne xam na ne légume bi dugg ci Sénégal 90 pour cent yi commune Daaru Xuddoos lay jógee commune Darou Khoudoss bu fekkee nawet la 90 pour cent yi ci soonu Taïba lay jógee léegi loolu lépp coupé na ku fi aman teranga ñàkk nga teranga ja ku fi aman looy liggéey ñàkk nga ko sonn nañu waaw xale yu ndaw yi nga xam bi am na ñu métier dañ doon bu njëkk jàng bu ñu jàngal ñu leen nangam nangam mais léegi bureau bu nekk waaye da ko yor am na nu doomi jàng la nga jàngaloo jàngalu ko ëpp jëluñu fi kenn ICS daal boo dëgmalee jàll bi nga séen booy dugg si dëkk bi muy bëgg dëkk bi jàll boobu normalement nab bi ciy wàcce dañoo xam ne yàq na ñaar fukki teen ak ñeent mais ëpp na ko ndax Kër moo Fall gii ngeen di jëkk a jot seen teen bi sës ci tëli bi nee na bu ca kenn naanati boo ci doon fóot tey ndox ma du am saabu mënu ko xabal. leneen it loo xamante ne metti na lool baykat yi nee nañ de ndox mi nga xamante ni moom leneen usine bi daan jox dañu koo dakkal ba tax na tool yu bëri daanaka booy nañu. ki nga xam ne bay rek la xam nga tuxal ko nangu ab dëkkam ba pare fi ma bën di bokkatu pour jéem a bay ci yow fi ngay exploité nga xatal ko fa. ndox ma nga xam ne moom nga doon sànni mu dem di ko root pour di arroser toolam mu gën a nangu ba am koom-koom gi nga xamante ni moom la ñu nawe tey. ñoom sax ñu ngi ciy sàkku nag njiitu réew mi mu àddu ci mbir mi. Macky Sall jaar na fi bi mu fi jaaree ñu gàttandu ko ak morto yu rus dajale ci Carrefour Darou loo xam ne bi responsable politique yi nekk ci zone bi kenn mënu ko ci dajale. waaw dañuy lu xew lu xew benn booy tëb ci ñun. la wax sax rafetlu nañ ko ndax dafa wax ni ko naq ba ñu ñu la danoo jaaxle la ñu nu waxan yëpp gisuñ ci dara. waaye jamono yi baykat yi nee nañ boobee ba léegi ñu ngi xaar amul dara lu bees ci mbir mi. atiir say Cheikh Anta Diop kon euh, ngin ngi neew ñu àgg fa foofee moom càccug jura euh, moo fay coow jamono yi teg nañu loxo nag euh, ñett ñoo xamante ni moom ñoom la ñu ca tumal gendarmerie bu ngin gi neew moom moo leen jàpp loolee gannaaw ba mu leen yàggee topp nag ba mujj leen ni kon nipp ña nga leen garde awi ah fan foofee ca gendarmerie juróom benni xar ay xar mouton de race kon la ñu leen fekkee ñu gis ni nag du ñoom dong ndax àndoon nañ ci ak complicité benn boucher waaye benn taximan bu ñu daan rey ba suul kon euh, seen i der boucher ba yóbbu ndawal si taximan ba kon euh, yor course yi euh, gannaaw nag niñ ko waxee wër gu mit yàgg topp gu ñu leen yàgg topp daaneel nañu leen Ibrahima Jàmme Amadou Ba gendarmerie bu Guinguinéo moo def li ñetti waxambaane lañ ñu ne leen nipp jàpp lañ tëj leen ci biir kaso bi ñu bokk nag ci benn bande bu nga xam ne ay weer a ngi nii ñu ngi def opération yi ni mel ñu leen di yoot benn bande la boo xam ne bi dañu ko signalé woon depuis temps yëpp. boobu ba léegi aussi maa ngi seen tànk maa ngi seen tànk euh, teg naa sumay agent de renseignement yu ma am ak yu demee noonu yëpp ba benn fajar ñu woo ma ne ma effectivement gars yi ñu ngi nii di wàcc ay xar. ci ak charrette ci laa rassemblé rapidement sama homme yi daw dem foofu benn village euh, bu tudd Ñolaanin vingt kilomètres la environ ak Guinguinéo bi ma yeggee fekk naa leen wàcc nañ seeni bagage ba pare ba toog di ataaya ci noonu kon la commandant bi ànd ak ay éléments lan lay pexeem benn leen nuus su dóor a dugg ci biir kër ga bi ñu gisee jóg bëgg a daw ñu daw jàpp leen bi leen jàppee ba pare sooga nag ñun ñu wër ci kër gi ci lañ gis benn euh, mbaar ca ginnaaw benn wurmbal ci ginnaaw fa lañ fekk xar yi ay xaru ras yu ñu sàccee benn dëkk ñu ngi ko sàccee à Warjaxal donc fa lañ ko sàccee donc euh, euh, juróom benn xar la Euh, ci lañ ci laa leen jàpp indi leen fii. bande bi nag am na ñeneen ñu ci rax ndax bu ñu sukkandikoo ci commandant bi am na boucher ak benn taximan bu nga xam ne ay complice lañ. effectivement dañuy liggéey ak benn boucher boo xamante ne bii Kaolack la nekk bu ñu sàccee dañuy indi automatiquement woowaa ji parce que même ci seen téléphone portable yi def naa ay recoupement ak yooyu yëpp euh, ñu ngi ci tànk yi donc euh, borom boucher bi day ñëw ak taxi ray fees. ñu suul seen i derek yëpp jël seen yàpp def ci ci ay saak yóbbu ko ci marché yi. association de malfaiteurs maanaam groupe def lu ñaaw càccum guddi yore ngannaay mooy li nga xam ne moom la ñu tuumal ñetti waxambaane yi leen di xaar kon ñu defeere leen ci parquet bu kaw. ci xibaar yi nga xamante nag moom mujj tukkee ci commandant de brigade bi ñu gannaaw ba ñu moom ci téléphone euh, xamal nañu ni kon euh, gaa yooyu ñoom ñett ñooñu kon mujj nañu leen a déféré euh, ca kon parquet bu Kaolack li wax nañ leen ko ci ndorteelu xibaar yi weeru ko koor wi ñuy sentu association kon sénégalaise pour la promotion de l' astronomie seen président lañu ñu dalal ngir fas ko yéene waxtaanee Maram Kéré monsieur Kéré maa ngi lay nuyuwaat. ñoo ngi leen di fay. weeru koor wi kon gannaaw gannaaw yi gëstu euh, am ngeen ci dat bu ngeen jàpp ni ca bis boobee ci la war a tàmbali muy banub date waaw euh, ñun li ñu li ñu jàpp mooy euh, nekk aljuma la ñu war a mën a gis weer bi fii ci Sénégal li ko waral mooy bu ñu seetee weer bi fi muy tàmbalee maanaam fi ñuy nattee nekk weer bi dee na beneen bi mi ngi tàmbali. Mhm. Euh, day tombe maanaam lu xaw a doy waar sax c'est-à-dire que buy tàmbali day fekk jant bi soowagul bu jant bi soowee. Euh, fekk na weer bi moo koy njëkk a dugg yi ñu jot at am ci at yi ñu génn euh, xëj na li ñuy tuddee conjonction mooy fii mhm. weer bi juddu na. Mhm. moo daan am après jant bi sow waaye bii pa jant bi day sow ba noppi. weer bi di doog a juddu te loolu alxames la vingt cinq euh, jeudi jeudi vingt cinq mhm. euh, weer bi mooy njëkk a dugg jant bi donc weer bi bu njëkkee dugg jant bi kenn mënul séntu ji weer ci bés mhm. boobu euh, weer bi euh, day dugg à 19h24 euh, jant bi topp ci ginnaawam bu jant bi sow 19h33 fekk na kon li ñu ko waxee weer bi dugg na ba noppi. loolu dinay bi njëkk dugg jant bi. ci ci ci séntum koor mën na am waaye li muy ni ñu toppante nii maanaam fukki minute kese. Mhm. jant weer bi dugg jant bi topp ci ginnaawam bëriwul lu muy am waaye li muy li muy indi mooy xëj na bu ñu xoolee sax téléspectateurs yi ci kart bi mhm. mooy. adduna bi yëpp adduna bi yëpp fépp fu nga gis mu xam mu xonq mhm. day wane ne que foofu weer bi mooy njëkk a soo jant bi mhm. waaw te weer bu njëkkee soo jant bi mënuloo taxaw di seentu weer mhm. donc loolu day dàq alxames cinq bi mu nekk bés boo xamante ne kenn mënu ci gis weer euh, am na solo ñu wax ko parce que yenn saa yi nga dégg ay information yu jóge beneen yeneen réew yeneen gox yu mel noonu waaye carte bi day wane ne fépp fu ñu dégg ci àdduna bi information bu jëm ci wàllu gis nañ weer ak yu mel noonu. Mm-hmm. day nekk loo xam ne mënuñu ci sukkandiku. Mm-hmm. parce mu nekk boo ko doon xool di ko jàngat ci ci ci yan zone euh, Sénégal bokk ci mu génn euh, continent bi Afrique dem ci ci laal na fu bëree bëri àdduna bi yëpp la àdduna bi yëpp fépp foo xam ne xonk mi ngi fa rek. Mm-hmm. mooy wane ne que weer bi moo njëkk a sow jant bi donc su loolu amee nag kenn mënul séntu weer ci alxames 25 boobu. léegi euh, le 26 ajjuma 26 am na beneen carte bu ci bu ci topp. ajjuma 26 waaw moo nekk ni bu jant bi soowee 19h33. Mhm. weer bi day topp ci ginnaawam di wàcc ba 20 h waaw loolu nag day nekk juróom fukki simili ak ñeent juróom fukki simili ak ñeent yooyu 54 minutes. Mhm. dina doy pour que nit ñi mën a séntu weer bi gis ko euh, su asamaan si sete mooy fépp foo xam ne dafa nekk en vert mhm. lépp lu vert ci carte bi. Mhm. nit ñi euh, dëkk yooyu Afrique gis ngeen yëpp ci la bokk euh, Amérique tam ci la bokk ba Asie yu mel noonu. fépp fu am fu vert bi rek nit ñi war nañu mën a taxaw séntu weer bi gis ko te du am problème li am solo aussi ñu koy wax mooy ne bu ñu nekkee ci peut-être waajtaayu nawet. Mm-hmm. asamaan si mën na mën na niis niir yi bëree ku mel noonu waaye euh, terewul ne que weer bi mi ngi fii euh, nee nañ 54 minutes yoo xam ne daf koy topp jant bi euh, ci aljuma bi mm-hmm. weer bi mi ngi fii bu asamaan si amee ay niir bu ñu jàppee nekk xëj na dañuy xaar ba samdi doo ko séentu mm-hmm. weer bi génn samedi day nekk weer boo xam ne weeru ñaari fan lay doon mooy indi yenn saay bu génnee nit ñi sax xëy na taf seen gémmiñ ne lii kat xam nañ ne du weeru waaw mm-hmm. du weeru tey weer biy génn samedi dina def ñaari waxtu ci asamaan si te weer bu buy doog a génn mënul def ñaari waxtu ci asamaan si euh, te dina nekk weer boo xam ne ñaari fan lay ñaari fan lay am donc ñu bañ def erreur boobu mm-hmm. euh, bañ a def erreur bi ci alxames 25 dégg rek nekk lii ak lu mel noonu mm-hmm. nañu jàpp nekk alxames 25 weer bi mooy njëkk a soow jant bi mais a a euh, mën a gis ci ci ci ajuma ji. ajuma moom fu asamaan si setee euh, weer bi dina nekk. li ma wax 54 minutes ci asamaan si euh, bu neexee yàlla dinañ ko mën a gis sans problème te dëkk yi ñu wër Afrique ak yëpp ñoo bokk même condition yi e je pense que du am difficulté pour ñu mën ko gis. Mhm. donc xëy na niir yooyu mën a tax peut-être benn gox nga bañ ko gis waaye Sénégal daal fu asamaan si set moom aljuma incha allah dinañ ko mën a gis. ci carte bi nga xamante ni nag am na ay xonq-xonq moo di fa ñu mënul mhm. gis weer wi ci euh, alxames yi souvent mhm. dañu naan fii xëy na feeñul fii nañ ko daan faral di gisee. waaye gis nañ ko ci Arabie Saoudite wala réew naar sàngam wala. Euh, ren euh, ñoom dinañ ko gis foofe waaw bu ñu xoolee carte bi gis nañ ne que carte bi dafa jugee west euh, ba mhm. est bi yëpp maanaam li jugee ay Amérique ba côté Japon ak Australie ñun ñëpp ñoo bokk même condition mhm. te bu ñu fàttali ko ñëwoon nañ fi daaw ci bi ñuy waaj korité bi mhm. ak tabaski bi waxoon ci même information yi même carte yi lañ leen joxoon yàlla def sutura ba ñu am benn korité benn tabaski même information yooyu lañ leen di joxaat maanaam Arabie Saoudite ak yeneen réew yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci zone bu xonq bi mhm. euh, ñoom mënuñu gis weer bi alxames le vingt cinq weer bi mooy njëkk a soo jant bi donc vendredi lañ koy mën a gis tàmbali woor xëj na samedi bi waaye bu ñu bàyyee tamit teg ci beneen bés mooy li may wax rek erreur lay doon parce que weer bi bu génnee day nekk weeru ñaari fan donc vendredi daal mooy bés bi nga xam ne weer bi dina nekk ci asamaan si dinañ ko mën a gis te euh, yeneen réew yi ñoo koy bokkandoo war nañ mën a bokkandoo umandoog ñoom ñëpp kon réew yi ñu wër war nañoo mën a bokk benn bis boo xamante ne ci la ñuy démarrer ndoo dugg ci weer woowu. waaw ci information yi ñu am te ñu sukkandiku ci woon daaw euh, ci korité bi ak tabaski bi. Mm-hmm. Euh, yàlla def mu nekk benn qualité ci àdduna bi yëpp presque benn tabaski ci àdduna bi yëpp même information yooyu euh, la ñu mën a euh, sukkandiku tey pour wax ne que war nañ mën a amandoo benn koor xëy na sax ci qualité yu mel noonu. Mm-hmm. waaw mais même condition yooyu daal ñoo taxawaat ni war nañ mën a am benn koor ci àdduna bi yëpp buñ ko xoolee ci carte bi lépp lu nekk en vert war nañ ko mën amandoo donc ñu nekk waa Arabie Saoudite ki mel noonu ni jant bi toppee ci weer bi alxames 25 fii Sénégal noonu lay toppee Arabie Saoudite tamit. tamit même chose lay doon donc ñoom duñ ko mën a gis la le 25. buñ ko déggee it euh, nañ jàpp ne que. weer bi ñu ko gisul Mauritanie génne ko Guinée wala <laughs> wala réew yooyu yëpp. bii moom vraiment àdduna bi la le cinq daal moom nañ jàpp ne que weer bi mooy njëkk a soo jant bi. xam nga bu dee sax daf ci weer bi dafa topp tuuti war nañ mën a ne ah ñii gis nañ ko ñële gisuñu ko waaye weer boo xam ne moo jiitu jant bi moom euh, séentu amatu fa ndax booy séentu da ngay bàyyi ba jant bi soow nga doog a séentu loolu la euh, diin l'islam wax donc boo xam ne weer bi dugg na te jant bi duggagul amul donc foofu séntu amu fa mooy li nar a am le 25 te àdduna bi yëpp ñoo ñoo ko bokk léegi nag le 26 weer bi dina topp ci ginnaaw jant bi euh, juróom fukki simili ak ñeent dina doy pour nit ñi mën ko gis. Mhm. ci wàllu euh, maram euh, wax nga ko daaw xëy na yàlla def na ci sutura ñu julleendoo benn am benn korité am benn tabaski kilifa dina itam ci seen wàll di ci jéem a def ay effort booloo ci kuréel xëy na xaajaloo bañ ci daan gis ñëpp di ko ñaawlu loolu ñu ñu jéem ko fi jëlee est-ce que ba tey ji am na ak jokkoo yenn saa ñu laaj leen wala xëy na àgg guñu ba tey ji ci boobu jéegoo na na woon fa woon rek. waaw euh, ñun li ñuy ñaan xëj na mooy peut-être information yi ñuy jox askan bi ñu mën ko jëriñoo fépp maanaam euh, du rek ñii nekk ci internet bi wala ñii di seetaan télé bi mais. kër diine yeeg commission yi fi nekk képp ku ko soxla ñun information yi pour ñëpp lañ koy joxe euh, waaye li ñuy ñaan xëj na peut-être mooy ñun loxo bi ñu tàllal euh, nit ñi mën koo euh, mën ñu ko delloo maanaam ñun ñu ngi déglu képp ku ñu soxla mën nañ ñëw waxtaan ak yow ci wàll bu mel noonu commission yi fi nekk di saytu weer bi aussi ñun suñu communiqué ñu ngi koy yónnee ñëpp presse beeg ñëpp a ngi ciy jot mm-hmm. bon mën moo wax nag ne fi mu nekk nii ñu ngi jokkoo waaye xam naa ne daal am na ci ñenn ñoo xam ne bu lu mel ni jotee dinañu woo laaj ñu ñun suñu xalaat ci lu mel noonu. wala xëy na bàyyi leen xel à travers les les médias. waaw comme communiqué ak yi ñuy def euh, xëy na ñu bàyyi ci xel waaye ñun daal communiqué bu ñu ko yónnee am na ñenn ñuy woote laaj suñu position ñu jox leen ko li ñu gënaloon nag mooy vraiment bu ñu ñëpp mënee toogandoo ci benn table waxtaan ci euh, ñun du ñu jël décision ne woor leen wala wori leen yàgg nañ ko wax waaye euh, mën nañ éviter yenn erreurs yi maanaam comme ñuy séntu weer boo xam ne juddoogul yooyu war nañ mën a éviter erreur yu mel noonu donc. Euh, lépp da ngeen koy teg ci gëstu yu leer a leer. moom keñ euh, du yamul sax ci ci wàllu xam nga li ñuy wax yenn saay mooy ci wàllu weer bi. Mhm. Euh, woor ak war yi la ñuy souvent def intervention yu mel nii mais boo seetloo ay lu jëm ci wàllu ay éclipse calcul yi ñuy def tey pour waxe weer bi fi mu toll moom la ñuy utiliser pour wax éclipse dina am bés nangam. Mhm. te éclipse mosuñu ko fi werante ndax dëgg la ak du dëgg saa buñ ko waxee am na fi en 2013 seen télé Afrique yëpp teewee ko donc wax dëgg yàlla amul werante heure julli yi tey ñu ngi bind jàkk joo dugg jumaa joo dugg ñu ngi bind heure julli yi mhm. yooyu même calcul yi ñuy jëfandikoo moom la ñuy def pour mën a xam jant bi fu mu nekk mhm. ñu natt ko bind ko te loolu musul am werante mhm. donc yaakaar naa ne euh, weeru koor ak wooreeg tabaski war na mën a bañ am werante parce que même information yi ñu ngi koy jëfandikoo feneen te amul coow donc euh, ñun ku ko soxla wax dëgg yàlla tàllal nañ suñu loxo loolu mooy suñu liggéey léegi nag décision yi xëj na religieux yi ñoo ko mën a jël waaye ñun euh, li ñu war moom dinañ ko def bu neexee yàlla te di ñaan yàlla dolli ci sutura li ñu amoon daaw ñu mën ko am ren ñëpp bokkandoo julli wareendoo euh, xëj na moo moo rafet ci askan bi. mango kon ñu ñaan euh, koorug jàmm di ko séntu incha allah ni mu ko waxee àjjuma ñaan kon fekkee ko tal ko dugg ci ak jàmm ci weeru koor bi maram ñu lay gërëm. ñu ngi leen di gërëm. maram kay kon la ñu dalaloon président association kon sénégalaise gan gi ci xibaaru digg bëccëg gi ñu doon waxtaanee kon weeru ko koor wi àjjuma kon bu soobee borom bi bu ñu ko séntoo danañu ko gis daal dugg euh, ci weeru sellu woowee mu di kon liggéey bu wér nee na foofu lañ ko daal di tekk euh, gaañi kon bàyyi ko xel mangook ñu jaajëfal la bu baax ci disponibilité bi. merci xam naa ba korité kon comme euh, yow moom jamono yooyu rek lañ lay seen. <laughs> incha allah bu neexee yàlla gërëm ko bu baax madame Kayre daal di suux ci wàllu xibaar yi ak ci junni ak juróomi téeméeri kilomètre ak euh, ligne yu bees secrétaire d'État réseau ferroviaire moom ci boppam moo def annonce bi jamono ju ñu ko doon euh, wisit kon usine boobee nag taxaw na ak euh, ay weer yu bare bari sax yar sax la ñuy wax jàpp nañ ni nag ci ndimbalul Belgique war na tàmbaliwaat ab liggéeyam Cheikh Anta Diop la say daanaka léegi raay bi teguwaat ci yoon li ko daggee dakaar ba Bamako saxaar yi di déxiwaat loolee la Abdou Ndéné Sall biral ci wisitam bi mu doon amal fii ci usine traverse nekk ci cité bi tey defar nag traverse yi jëm ci raay yi. parce que Bamako 400 camions ñoo fay dem par jour loolu day yàq suñu tali yàq suñu yëpp te 400 camions bu ñu amee 5 trains mu def ko donc vraiment moo tax moom mu ni day investir chemin de fer bi am projet yu rëy 1500 kilomètres ci horizon 20 ans yi. mooy horizon 2015 2035 PSE bi day jógee Diamniadio ñëw Thiès dem Saint-Louis yeneen yi dem côté Mbour Kaolack am nañu projet bi nga xam ni day jógee dakaar def standard que bi 1 mètre la bi 1 mètre 435 mu dem ba Tamba ba jógee Tamba dem jëli phosphate bi maatam ba jëlee Tamba dem Kédougou jëli fa mine de fer yi bu jógee Tamba def le contournement en lourd de la Gambie nga xam ni ñëpp xam nañ ko nga xam dafa war a dem Casamance donc bu 1500 kilomètres de nouvelle route yi nga xam ne bu ñu amee ay investisseurs yu ñëw luñu ñu accompagner ci benn élément dañuy tàccu rek. nguurug Sénégal lëkkaloo ci ak benn entreprise jógee ci Belgique ñoom nee nañ daañu waa raay bi ba tax na nag usine traverse bi nga xamante ne daanaka ci ay jafe-jafe la nekkoon ay at ngi nii daañu gën a yëkkati. Il s'agit vraiment de créer ici une activité industrielle qui pour faire daanaka usine bu ñuy samp fii la buy def ay traverses béton liggéeykat yi fii lañ leen di jël ñun transfert technologique la ñuy def. de travailler avec du personnel local transfert de technologie. ngir suqali nag kër googu koppari toll toll na ci ñetti milliards liggéeykatu Dakar ba moo ko ferroviaire ni ko ministre bi waxee de war nañoo nooy waat bu baax ndaxte jamono yi mel na ni saxaar gi lépp dina teguwaat ci yoon te daañu suqali Dakar ba ma ko ferroviaire forum euh, régional bi nga xamante ni taxawal nañu ko ngir fexe ba jigéen ñi mën seen bopp ci wàllu ko koom gi euh, jigéen ñi Sédhiou jot nañ ca juróom-ñett fukki million waaye jàpp nañu ni doyul euh, bu weesoo ñàkk doy googe nañu ko séddalee baaxul loolee kon la ñu daal di xamle xaalis ba it nañu ko gérer baaxul ba tax na fa ñu bëgg ñu gën a taxaw moo di ci wàllu formation Fatou Bintou Diédhiou mooy seen responsable ci conférence bu ñu amaloon wax na ca ci micro Bakary Konté Sall Samb nu ñuy def euh, ba ba jigéen ñi ñi mën a gis seen bopp ci liggéey yi ñuy def accompagner jigéen ñi financement yi ñuy jot ñu xam nu ñu koy defee ak nu ñu nu ñu koy jaarale ba mën a bénéfice ba mën a yëg en tout cas njëriñu financement yooyu parce que ñu ngi wax ay financement yu yegg si fii au niveau de la région de Sédhiou mais financement yooyu sentiruñu ko parce que lan la bëriwul bu ñu nee 80 millions pour Sédhiou yëpp 80 millions buñ ko tasaaroo ci gox goxaana Sédhiou maanaam man boo moytu benn 100 francs dong laa ciy am donc loolu euh, euh, pour ñu ñun ñun loolu mais ñu ngi saluer tamit effort bi état nekk di def franchement waaye ñu ngi ñaan tamit état gën ñoo jàppale ah ba jigéen ñi sentir seen bopp ci loolu parce que naan Sédhiou jigéen ñi duñu fay bor ci loolu yëpp la parce que certes euh, euh, seen ñàkk fay bor boobu du yoon dëgg la dañu war di fay bor mais aussi boo xoolee ci GIE boo xamante plus de cent personnes ñi ñëw ñu ne la cent mille francs ngi nii benn ngeen liggéey ci cent mille francs boobu wala trente cinq am na ñoo xam ne GIE li ma lay wax ni dëgg la de am na ñoo xam ne trente cinq mille la ñu jot ci GIE wàllu ko wergu yaram ak bisib tey bi nga xamante ni moom la ñu jagleel jàngoro jooje ñu naan fistule obstétricale moo di jigéen yi nga xamante ni dañuy dem euh, ba xëy na te kon seen um, tour ndox dana leen euh, jafe euh, xeex boobee nag kon tey ji la ñu koy mandargaal ca bari di juddu ci wàllu accouchement ak yenn jafe-jafe yi waaye teel a sëy ci gone yi ña ca bari te ñoo leen opéré ca l'hôpital kon général bu Grand Yoff tey jii ñoom docteur yeeg kilifa yi koy xeex danañu leen kon. politique yi des na dellusiwaat ca la ñu ko jàpp ëpp nañu junni ak ñaari gone yoo xamante ni amuñu woon ay këyitu juddu ñu recensé leen ca département bu suy atum 2016 ci ndimbalal kon comité départemental bi yaar tout tànk yi kon ak ña ñu lëkkaloolu jot nañ leen kon defaral ay papier préfet bu suy profité kon ci visite ambassade ambassadeur bu France ngir daal di cay Christian Diatta kon euh, préfet bu suy ci micro suñu ndaw foofee. bi ñu defee recensement ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu njàng mi ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wér-gu-yaram dañu gis ne amoon nañ plus de 1200 cas yoo xam ne ay xale lañ yu nekk à l'école yoo xam ne ñoom amuñu extrait de naissance. moo tax bi ñu mettre en place suñu comité départemental de protection de l'enfance muy le CDPE suñu combat bu njëkk ñun moo nekkoon nan la ñuy def ba xeex loolu yàlla def ci jamono yooyu UNICEF ñëw suñu wet loolu permettre ñu aujourd'hui sur les mille deux cent et quelques yi nga xam ne ñoo nekk les enfants à l'école on a pu enregistrer mille cinq cent soixante et un enfants yoo xam ne ñi ngi ci département de Oussouye yoo xam ne dañ doon dox di dem di ñëw te amuñu bi nga xam ne mooy pièce d'état civil donc loolu nekk loo xam ne nag am na solo ndax AFD mooy liggéey ak UNICEF UNICEF liggéey ak CDP bi kon ñun mënuñu ludul sant leen vraiment gërëm leen remercier leen également au nom du chef de l'État et au nom de l'ensemble du gouvernement Boubacar Dia si Lamine Magna tataan yi kaddu wàllu ko politique ak élection député yi ñuy dëgmal fële euh, ca Tëngéej ca mouvement pencum Tëngéej moom beneen xeetu député la bëgg ñi muy gis ci assemblée nationale kon ci législature yi passé dara neexu ko ci liggéeyalu ñu askan wi la taxoon ñu leen fay yóbbu gisuñu ko ba tax na ak coppite daal la ñu ca bëgg ñoom it ñu bëgg caa dugal seen loxo Badou Diack mooy euh, président pencum Tëngéej ca ci micro Seynou Thiam caméra Bira Diagne député dafa am ndaxte mooy ki nga xamante ni dañ koy fal pour mu taxawal askan bi jël en compte seen i consultation jël en compte seen problème mais li ñu seetlu mooy que Tëngéej dafa mel ni amul député ndaxte bi leen fal boobu léegi gisuñu seen taxawaay si wàllum problème mu Tëngéej ndaxte boo xoolee problème yi fi jaaree problème stade baa ngi fii problème mu canal baa ngi fii problème avancée de la mer baa ngi fii problème de jeunesse baa ngi fii donc lié au chômage tout ça là mu doon un temps en charge parce que boo xoolee tamit ni nga ko tëralee euh, Euh, rôle jeunesse bi si wàllum euh, processus boobu noonu ku ko Tëngéej mën a suuxal ko dem kanam dañ ne pourquoi pas ñu impliqué wu si biir du début à la fin ñu proposer ay euh, ay députés yu bees proposer également ay solutions. député yu bees solution ci jafe-jafe askan wi loolee kon moom la kàddu moo di kàddu yu tukkee ci kon njiit pencum Tëngéej dal ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf man ko taxawu Sénégal caaxaanatul l'observateur nañu coowlee bari rek ak wax ji waaye ñoom la nekk ñoo nga ca mu di àndandoo demandoo ci législatif yi 2017 yi gañeendoo ko am majorité bu rëy yéenekaay bi nañu lii wane ne coalition man taxawu Sénégal caaxaanuñu moo di caution bi ñuy laaj ngeen mën a ci législatif di caution bu toll ci fukki million ak juróom waa man joxe nañu ko jébbal nañu ko service yu ministère de say leader mel ne ku naan ñu coalition Manko Taxawu Sénégal seeni mbir mbaxalum xeer la rek njëkk a taxut a njëkk a li leen nar a yàqal moo di jubóoguñu ba léegi ci fan la nar a jëlee tête de bu coalition bi ne Parti démocratique Sénégal nee nañu tête de bi ci ñoom la war a jugee nañoo ëpp dayo ci opposition bi waa initiative ne du ci dal gaa yi ànd Khalifa Sall nee nañu ki war a doon tête de liste Manko Taxawu Sénégal ci législatif yi ci ci Manko la dafa trahir opposition bi dem taxawal mbootaayu boppam mbootaay ga ñett ñoo ko tax a jóg bi ci njëkk yéen kaay bi nañu moo di oser l'avenir maanaam ñeme ko ñaareel ba moo di dugg ci gouvernement Macky Sall jaaree ko ci mouvement bi ñetteel ba moo di bu lépp sottee moom soxna si di Aïssata Tall Sall mu transformé dem fekki Macky Sall direct info nañu Aïssata Tall Sall lii mooy ay pexem Omar Gueye ak Omer Seck kañ la ñuy neexoo le du léegi a njiitu nga APR ca diwaanu Tëngéej ngir jubale fa Omar Gueye ak Omer Seck waaye ba Omar Gueye jugee jël kàddu gi di wax ca Omer Seck ne ñokkeet jug demu yoonam bett mboolem ku ne woon ci mitig ba enquête ne kay ko li mu ca gis moo di ñàkk kilifa ak yar bi war militant ci parti bi loolee moo amul ci gaay APR yi Moussa Diaw di gëstu ko ci wàllu politique nañu li am ci APR li ko indi moo di Macky amul woon jotuk organiser parti bi professeur Ibou Sané nañu bu président génn ci ñoom ginnaaw loolee ñu xooli maire bu Dakar di Khalifa Ababacar Sall ma ca kaso ba Vox Populi nañu démb ba fa ay doomam demee doon ko seeti ci rëbës Khalifa Sall nangu leen woon a gis li tax moo di na mu nekkee la bëggul doom gis ko moo tax doom yi ba ñu yegsee Khalifa Sall nanguloon gisee ak ñoom ñi koy jàppal tànk moom Khalifa Sall maanaam ay farandoom Vox nañu li ñu bëgg moo di xeex bi bañ a yamati ci réew mi rek dañu ko bëgg a yóbbu ba ca bitim ma di Adama Barrow ak na muy doxalee journal bi gis na ma ngay traqué yaaya jàmme loolook looloon ndax moom yaaya jàmme mboolem lu mu amoon mu di teranga gelé nañu ko ñu ne déet ne waaye ay jege ñaale moom yaaya jàmme ñu leen di jàpp di leen teg loxo ca Gàmbi Les Échos nañu yaaya jàmme gelé nañu la mu am ne teranga ca Gàmbi bokk na ci téeméeri kër ak fanweer ak benn juróom fukki compte bancaire ak juróom-ñett fukki entreprise ak ñeent ak lu ëpp juróom fukki millions yi dollars kooruk ren li ñu gis moo di kooruk ren gi samedi ñaar fukki fan juróom benn ci weeru mai ci lay tàmbali ci Sénégal Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy gërëm bu baax gërëm leen yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi 19h30 20h incha allah rédaction bi dina dellu si bu boobaak yeneen i xibaar jërë ngeen jëf.